Sakal kam defal ñun suba rek war nañoo jot benn loo bu am importance boo xam ne mu ngi jëm ci boulangerie te loolu yëpp dara warul ko lu si njëppam kon nag euh, ndéegi li koy ñaanal mooy yàlla na jël mairie man daal loolu laa koy ñaanal yàlla na jël mairie bi su fekkee ne ndéegi ay dara euh, jógoo lu dul def xale yëmbal jógoo lu dul def social ci ngay dox lépp looy def rek dangoo bañ a sow yaa ngi xalaat femme yi yaa ngi xalaat néew di doole yi yaa ngi xalaat les personnes démunies kon nag dégg ay danga yàlla na sa jàmm yàgg yal na la yàlla fal cat yal na la yàlla defal jàmm yokku sutura gi yokku xéewal gi vraiment sama xol daa am ne mënu ma wax lépp merci beaucoup ndaw ñi nga xamante ñoo nekkee foofu ci commune bu Kër Massar ñu ñëwoon fi nag euh, teewal euh, jeunes ñaa yëpp ñëw fi tamit euh, ndax relation yi nga xamante ne am nañ ko suñu grand frère Ndéri Aidara yaakaar naa ni c'est pas la première fois ñuy ñëw yëmbal Nord ci activité yu nga xamante ni dañ ko organiser soit pour sargal Ndéri dara wala ñu parrainé ko wala ñu koy delloo ñu te bis bu yàlla sàkk seetlu nañu bu ñu teewee gis ay mbokkam ak ay dëkkandoowam gërëm ko wax ci moom li baax wax ci moom liggéey bi nga xamante ni nekk na liggéey bu am solo bu koy def nit ñi yëmbal Nord kon donc tey ñu ñëwoon fi rek pour euh, delloo ko jukkal wan ne ko ñun ñoo bokk suñu parti LDR Yeesal bokk aussi suñu département bu Pikine bokk surtout suñu fédération bu Niayes ñu ñëwoon tey jii nii ànd ak suñu sër Bour Sidibé pour teewal ko ci activité bi nga xamante ni tey waa Yeumbeul Nord ñu koy organiser di ko ko sargale maa ngi tudd Gory Sidibé nekk commission féminine Kër Massar ñëwoon représenté jeunesse féminine Kër Massar si yëmbal bi ñu doon sargale sunu frère Ndéri Aidara comme ñoo bokk département bi bokk tamit fédération day Ndiaye donc bu ñu woowee amuñu lu dul ñu déplacé wu rek ñëw teewal ko ci bésam parce que nit amul lu dul donc looloo tax looloo looloo waraloon suñu présidence bi tey di ko parce que dafa nekk koo xamante ne day lu lu fédération bi euh, moo taxoon daal ñu ñëw bi. Euh, maa ngi tudd Souleymane responsable des jeunes du parti LDR Yeesal de Yeumbeul Nord di euh, ñëw tey di teew ci journée bi nga xam ne ñu ngi koy président de la section de la commune de Yeumbeul Nord muy Pape Nderi Aïdara mu nekk suñu benn artiste boo xamante ñu ngi dëkk ak moom dëkk bu yàgg kóllëre nga xamante ko bëgg a féddalee moom moo waral teewaay bi ñuy laay ndàll ci biir loolu ñu ngi ànd ak suñuy yi nga bokk ak fédération Khalifa Babacar Seck de la commune de Malika nga Bathily Kouri Sidibé du moins ñi nga xamante ne moo nekk présidente de la commission féminine de Kër Massar waaw ñu ngi rafetlu ñoom ñu teew rek dafa mel dañoo teewal ndaw parti LDR Yeesal yëpp pour délégation yi tamit am na suñu allié yi nga xamante ne ñu bokk ñoom ci commune bi muy le frère Daouda Diédhiou ànd ak jeunes yëmbal yëpp def leen délégation ñëw dooleel dër yi jàppale ko ci journée bi nga xam ñu koy sargal maa ngi tudd Mariam Sarr di militer ci parti LDR Yeesal occupé wu fonction en fait pas fonction parce que amaguma ndomb mais dama and ak leuri ci parti bi euh, ma chargé au développement ak formation te nag ñu gungé ci suñu leader ci soirée Ablaye Ndiaye vraiment mu nek ko xamné ça fait des années ñu and ak mom ci ngor ak sutura te mu tek ñu fo xamanteni ñun kawe na sax suñu njor bu digi dafa ko ndëri ñu and ak leuri war ko mëna gungé war ko mëna dolel vraiment soirée bi mom machallah tay wa yembal lepp lépp nga a fi tase. vraiment ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi rafetlu guddi gi rafetlu ni mu demee parce que ay femmes de développement ñoo fi tase ak ay hommes politiques des femmes politiques donc daal vraiment ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi am kontaan ba ñu assisté tey ci guddi gi di remercier Ablaye Ndiaye ci honneur bi mu ñu defal parce que ku la tuddee bés am na fu mu la teg donc ñu ngi koy remercier bu baax di ko sant di ko gërëm vraiment di remercier ñëpp aussi ak délégation bi ñu àndal ñoom madame Faye waa comico yi euh, Ami Ndiaye mu ngi sama wër dëkk Bayal ak euh, waa Gëm sa gox aussi ànd i ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci parti bi ñuy ànd guddeeg bëccëg suba ngoon ñoom ñëpp ñu ñëw pour dooleel ndëri ak waa Kër Massar yi ñoom Khalifa Babacar ñoom Buri ñëpp a ngi fi daal. vraiment ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñep di leen wax daal ñu leen di souhaiter ñu passer une bonne soirée. waaw salaamaaleykum euh, ñu ngi leen di nuyu yeen ñep di rafetlu bu baax ñew bi nga xamé né mom lañ ci ñew tay ñew tay ci anniversaire Ablaye de Fall nek artiste bu mag fi ci yëmbël nek doomu yëmbël ñu am mbégte bu baax tay bu ñu boolee ci parrain vraiment may sante di gërëm délégation bi nga xamé ne ñoo and ak man.

ku ci mel na vraiment ku lim délégation bi Machallah, allah ànd ak le responsable des jeunes Souleymane Sané di nuyu aussi sama soxna bi nga xamee ne moo ànd ak man di wax ne daal vraiment ñëw bu ñu ñëw ci anniversaire Laye Ndande Fall bëgg nañ trop parce que Laye Ndande Fall dafa nekk nit koo xamee ne dafa yàgg ak ñun nekk nit ku baax nit ko xamé né fep fo xamé né dañ fay dem dafay ànd ak ñun donc vraiment tay bu amé bis bu toll ni lu ñu wax moy ñu ñëw and ko ak mom donc di contane trop ci bis bi. waaw di profito aussi di nuyu les responsables du parti LDR Yeesal yi nga xamé ne ñoom laa on a fait une délégation une délégation forte ñëw représenter fi en même temps le président Modiagne Fada nek suñ président du parti LDR Yeesal. diko ko di aussi diko ko ci taxaway bi nga xamé mom la am ci sonakos bi nga xamé mom lañ ko dénk ci taxawaay bi nga xamee ne am na ko euh, ci wetu président Macky Sall diko vraiment jaajëfal ci taxaway bu baax gis nañ fan yi tournée bi nga xamee ne moom lay def lépp jëmale ko ci bonne marche euh bu Sonacos donc vraiment am nañ ci kontaan trop di ko ñaanal yalla ci mission bi yalla na ko réussir ci tam ak salaam. Música